Mbacké Ndiaye lan ngeen ci ban rôle ngeen ci joué. waaw c'est important ma leeral ko maa ngi dégg ñuy wax ni Pastef def na communiquer ni délégué wul kenn pour mu dem di def médiation loolu mën naa ko confirmer fii. Hmm. man bi may dem demuma ci turu Pastef. parce que nag mais tàgguma Ousmane Sonko tàggu Serigne Ousmane Sonko bi. Serigne Abdou Mbacké Sonko tàgguwuma ko. Hmm. parce que man dama gëm ni nit bu ngeen àndee te yàlla rek boole leen réew mi rek boole leen. boo demee ba gis ni lii di xeeñ nii complot da cay rax léeg-léeg di nga am sa démarche individuelle pour fa fu ñu war a jiitu rawatina ci kilifa yow nga am courage ak fit jàkkaarloo kooku wax ko ni mu demee kon man sama demu Touba man maa jël sama initiative bopp gannaaw ba ma ci diisoog nag ku mel ni Serigne Abdou Mbacké nga xam ni du ma def dara te duma ci waxtaan ak moom maa ngi koy nuyu au passage mu nekk sunu kilifa kilifa gu lewet gu yaatu ñu jël ci ay orientation ñu dem. parce que ba waxee nee na la mën nga dem. waaw parce que sëñ Abdou naka jekk dafa mus a dem ci sëriñ Muntaxa li fi xew lépp mu di ko ko wax parce que ñun sëñ Muntaxa mooy suñu kilifa tey sëñ Babacar Sy Mansour mooy suñu kilifa bu ñu àndee président Ousmane Sonko gis ni. lii ñu ko teg nii injustice la lii ñu ko teg nii ab complot la ñun en tant que ay nitu diine ay doomi daara ñun xeebuñu suñu bopp ci réew mi ñàkk xeeb suñu bopp ci réew mi moo tax ñuy jël suñuy responsabilité ci moment bu nekk. mais mais nan lañ ñëwee nan lañ ñëwee may mun a ñàkk xeeb suñu bopp moo tax lu contexte bi metti métti dañuy def li suñu conscience tranquille li mu nangu ñu def ko moo tax ginnaaw bi ñu amee ginnaaw bi ma waxtaanee ak ay kilifa diine loolu Ousmane sax yëgu barke Cheikhou Tidiane ñu dem seeti Serigne Mountakha. mais mais mais nan la seet